xam nga dafa laaj jàngat damay njëkk laaj lan moo tax maajoor génn di wax ak kan moo ko lo loolu jar naa laaj fàttaliku naa day e, weer wi rek sonko ñëwoon na grand théâtre ba mu ne baale naa xale dañ ko ne déet déet fekk nee na xamu leen fan laa jëm déglu leen ma rek uhuh. mu ne man mii liñ ma def uhuh. tej ma bundu xatal ma sonal sama waa kër toroxal samay soppee yëpp man mii man mën naa baale sama wàlla parce que avant loolu newoon na leen yonent mooy sama royuwaay ci politique mu di wax ju rëy mm-hmm. mu ne waaye déglu leen ma mm-hmm. la mu njëkk cité mooy mbirum ñaar ñii ministre bi di wax sàmm mii te ca teg ne bu ñu leen àttewul la jox ca seen mbir kon ñun dañuy nekk ay criminel mm-hmm. baat boobu la Sonko jëfandikoo kon li tax ministre bi génn lee ñu bëgg ko xam xam nga lan la. Euh, waxuma la sax moom pour muy wax mbiru amnistie te dinañ ci ñëw. moom ci biir mu ngi ci biir mbiram mu ngi ci biir te dañ ko war a régler. moom ministre de la oui bu muy xew de moo fi nekkoon comme ministre de la justice. voilà ba muy coow fii di contumace di contumace rek mu ngi tollu léegi ci ay affaire amnistie fi mu ne nii. Mhm. ana contumace bi mu doon défendre. ne contumace fii buy wax fi lii mooy contumace lii di contumace jàppee ñu Sonko lii boobu jekku na tey nag xam na ne faaw justice taxaw te ñoom ñëpp ñu ngi ci biir te xam nañu Sonko bu baax a baax a baax soxna si. Mhm. Sonko ak dëgër bopp chaque jour ma répété leen ko. Mhm. ba pare alhamdulilah yàlla da ko may fit woo xam ne jàpp ma ne ñoom ñëpp am na ku ko ci yor ñetteel ba mooy Sonko nguur daf cee bëggul dara am ko léegi ak ñàkk ko léegi la yemale su nekkoon moom kese la. yàlla xam na ne réew mi Sénégal rek moo ko jaral lii parce que su neexoon mu toog ca milliards ca impôt domaine. kenn du sëqat lekk ci mëq ci ba doyal. kon xam nañu jëmm ji ñu amal affaire te justice dina tijjeegu ji day tijjee ko. xam nañu ko bu baax nag génn nag di bëlëf bëlëfee wala di wutum yoon tôt ou wax ji dina jeex ñun sax dañuy tontu fii mais xam nga tontu bi gën a gaaw. xam nga yaa ngi dégg coowal assemblée nationale. xam nañu fi ñoom koo jëm. gis nga relation bi nga wax nii ne am na ku déposé xam ma projet de loi. amul lu ñu ja gis nga lan moo leer sonk ak Diomaye dañ na ñuy defar ensemble nekk fa majorité dindi amnistie bi jublu ci justice bi xam nañu fi booy dem. Mm-hmm. nekk fi nag génn discours mais seen rol la ñuy def waaye xaaral bu boobaa rek alhamdulilah nag soxna si. Mm-hmm. ba nga xamee ne ndekete yow ci loi yi amnistie beneen loi mën na di ñëw dindi am nesti bi. ci liñ jàngal ci justice maanaam décret yi Macky Sall tegoon fii yëpp pour jalkati du joomaay daa ñëw dindi yëpp amnistie bi noonu la ñu amee ci yoon ñu vatuwaat beneen loi pour ñu dindiwaat am amnistie bi ah. alhamdulilah bu loolu amee Madior na wax lu ko neex rek Mm-hmm. mu mel ni eh, ci loolu dafa tax sax ki nga xamante ne ni moo di Fadilou Keita mën nañaa jàpp ne sax moom eh, victime la woon ci mbir moomu nga xam ne moo jëm ci mbirum eh, Fulbert sàmb ak Didier Badji génn na tontu di xamle ne ministre bi li nga xamante ne ni def nañ ko mën nañu ko jàppee ne sax dafa nekk jamono ji di avouer yenn yi nga xamante ne ni peut-être ñu ngi leen ko doon tuumaal ci jamono ji nga xam ne yore nañ ko réew mi Mhm. loolu mooy kan moom moom xar bi rek nga bàyyi buum bi. Mhm. comme moom yoonu nekku ci lu muy génn di justifier lan lay justifier moo tax ma ne lan moo waral génn gi xaaral ma génn gaaw xam nga booy jafur moom faaw nga génn. Mhm. maintenant Fadilou Keita moom dama lay njëkk wax ne ci famille bu baax la juddoo yaayam rek jox nañu misaal. victime bu baaxu yaayam la. sama yaay moo xam seen famille tuuti sama rakk yaay xam na leen tuuti. lu bëri daf ma koy wax ci ñoom ci seen dëggu xaw moon sax Fadilou mais wax la ne dëggu yaayam. moo ko jural sax lii. moo ko jural problème yi mën naa la ko wax. gis ngeen lu mu ci doon. est que ca bindam lan la war a def sama frère yooyu la doon laajte. yo terme yooyu la ko laajee. Mhm. sama frère lan la def terme boobu la ko laajee ci ci phase Facebook am xam ci tweetam mhm. ñu ne ko ciif téye. ko ko xarit boo xam ne depuis sa yaay mu ngi sa wet. ñu jékki téye ko xamoo lan la amoo dura laaj ñu ne ko doo laaj ñu téye ko waa nga bëgg a ñëw nag Fadilou loolu daal dañ koy lëmes nañu expliquer lu tax ñu tëj ko rek Fadilou moom cëram ci mbir mi mhm. <laughs> cërum Fadil aka ma wax dëgg mhm. comme laal nañu ma ci mbir mi te man yëguma tinuma mhm. kon nañu ma woo wax ma lu tax ñu téye ma kaso xanaa maa joor sañuy wax loolu ne nag amnistie day ñëw Fadilou mu war a baale wala amnistie mu war a baale attention ak ak Messi bi lan lay baale. aussi voilà mhm. voilà dama la ne bu doon baale seen tappale yooyu yëpp nga baal ma na ñu jël lépp damas ko ci biir mais dama la ne alhamdulilah. Mhm. ba droit wane ne président mën naa dindi amnistie ak beneen loi. maanaam na maanaam da ngay toog sax ci juridiquement ñu ñuy sonal ñu ñuy jàngul justice. Mhm. xam nga soxna si man damay bañ xam nga lii benn xalaatkat di wax. <laughs> nee na nit ñi dañu war a waxtaanee dara dix minutes wax ko deux heures de temps yi quoi. manam buñu andil débat xam nga lan la. alhamdullilah su la neexee ñu dugal rey yeeg tëj yeeg sàcc yeeg lépp ci amnesty bi su la neexee. mais alhamdullilah nag ba amnistie amee beneen doole bu yegg ci kawam rek. voilà parce que ay soldats yo xamantene euh, disparaître peut-être kenn ki na ki ci des batay euh, sax euh, gisaguñ ko sax la wax duñu wax ko nga ci ay yi nga mbirum ay événement politique la yo amna ci digënté 2021 japp 2024 mu

ba am sax am na soxna su wàññeeku après boroom këram ndax ñàkk mën a rester. nga xëy lan nga bëgg ci turu si ñu bàyyi ko nii quoi comme ça. Mm-hmm. nga yaakaar ne waxuma la dara boo dajeek yàlla deret jooju topp gaa yi attention gàcce àdduna moo gën gàcce àlaaxira de. Mm-hmm. su nekkee dangay ngay yoru seen loi ba bëgg ci nëbbatu àlaaxira moo leen di xaar te loolooy mujj nag loolu dama ko mujjël mooy dernière alerte. Mm-hmm. ku nekk suba yomal qiyam dere do tour ba nekk di nga ko delloo boromam te yàlla xam noo ko koy delloo te foofu àjjana ak safara ñoo fa nekk te boo demul àjjana yaa ngi safara nañu yeewu mm-hmm. duñu ñu tàppale ba doomu jàmbur yi dee ñu wuti loi dama la ne nite rek waroon na tere maajoor génnaat di wax ci mbir mi respecté ñi dee rek waroon na tax respecté famille yi dee rek waroon na tax ñi ñu ngi joy seen dëj jeexagul nga bëgg génnaat mel da nga leen di teg naqar quoi c' à dire bëgg comment dire encore c'est fini quoi ñak ngeen seen mbokk yi c'est fini quoi muñ leen leen comme ça wala tok leen jooy leen mënatu leen ci dara non mënul ne justice dina taxaw te bu taxawul bu divine dina taxaw man waxna naa leen ko man nit mu fi di menacer ñun xama luñu man mhm. yoruñu justice mais man nañu ñaan képp ku ñu bu la gisul devant la justice ñu dugg porte le plainte ak parce que dañ ñoo tooñ te jàngal nañ ne ñaanu ku ñu tooñ buntu asamaan day tijjeeku xanaa loolu yomb nañu xanaa jànguñu li li passé xam ne xeex bi bu nekkoon cent la soixante pour cent yëpp ñaan a tax gars yi jóg fi ak yàlla mi nga xam ne kenn xamul mbiram xoolal doole gi ñuy yoroon réer bu ñu yoroon simlaay saala yàlla rek la ko ci deux semaines ba tey waarooguñu ba pare di génnaat quoi di def semblant non xaaral ku ci génn nag sa bopp ngay défendre waxaloo kenn ku ci génn sa tiitaange nga moo tax nga génn parce que loolu booy ban sorti sorti maajoor ban sens la am ak kan moo ko ko laaj. ñi ñi xam nga lan la waroon def. xaar be gars yi laa dossier yi sax mais xam na li xew xam na li xew. dama la ne toog naa benn juge xam na lan la ma wax. mu ne ma gis nga ñun problème mu njiit lu dëng la ñu am. juge buy wax loolu parce que moom bëgg na ma xamal ne kon ndigal yu bëri ñu ngi koy def ca kaw day jóge di ñëw ci ñoom. mais loolu nag bu ñu ko xamee ab réew doomu jàmbur dee pàppu jàmbur dee nijaay jàmbur dee nga bëgg suule nii te mbokk ya baalewul ci lislaam sax ci lislaam te xamuñu sax euh, en fait bu ñuy baal ñan la ñuy baal. voilà mhm. rey nit rey nit. dagg loxo nit. nga tey benn lumière boo xamante ne. voilà defagum nañ ko ci loolu mënuñ wax ne euh, lii moo tax ñu disparaître. voilà wala lii moo tax kenn ki ñàkk ba kanam. voilà kon Diomaye ak Sonko nañu toog rek ku lappi lappi ñu jàpp tëj jàpp ñu la ba pare bu ñu paree dem bind amnistie nguur gu ñëw def noonu xool nañu ko xool ku waxati ci ñoom léegi ñu ne la ci dugg ci kaso bi ku nar riposte ñu dugal la loolu nga yaakaar ne xel la. Mhm. nañu bàyyi caaxaan te justice dina taxaw xam nga lan la xam na ñu fi xale yi jëm. xam nañu ko te nag naa la jàngal dara maa ngi koy dénk ñi yaakamti famille yi deele def leen ndànk dal leen àdduna tukkeegul ñun xamuñu kañ lañu fi jóge mais justice dina taxaw bu àdduna wala bu divine te bu boobaa dina leer parce que Sonko loolu mënu ko fanaanoo di ko nelewaale Sonko day sentir ne moom dafa coupable bu li amul te xam nañu booy bi xam nañu ko bu baax a baax a baax mm-hmm. wallaahi bu ñu toogee seen néeg di waxtaan xam nañu ko bu baax ki ñu amal affaire dégg naa euh, même bokkum keroog muy wax ci waa ji naan àttanul li ñu ko jox. nee na Sonko matul li Sonko yéenu moo ko dépassé. moom la respecté wul ma ne la li Sonko yéenu moo ko dépassé moo tax mu génn xamagul moom moo àttanul sonkoo moom. waxuma la soo ko àtt moom ci boppam moo àttanul Sonko imagine toi mu génn wax waxu xale ay littoral bi am na benn hôtel bu fa nekk xam 1000 mètres la la la occupé te gaa ñi bi ñu gañee nguur gi foofu lañu toogoon di fanaan mel ni Sonko daa validé loolu quoi mu ne Sonko na ci njëkk wax loolu dama ragal sax mu ne waa ji bërëb borom bërëb bi xarit la ci Sonko wala xàmmeem la quoi su ma jumul mhm. ma ne ko kii xanaa xamoo Sonko impôt et domaine la nekk xaritam intime jël xaalisu jàmbur mu porté ko plainte dafa fàtte loolu moom bokkum mhm. <laughs> sonko mo nek impôt man xaritam intime la jël xaalisu jambu mu ko boko delu dama lay porte plainte be DG directeur nan ko mais yow yow yow ki sa collègue travail sa xarit mu ne ko nako delo rek sonko amul mbokk ci rew mi kon kenn bokku waxam yi xamul sax limuy wax xamul sonko xamul sonko motax mané la dañoo mom da ko ignorer lu sax da ko xam nga amna koy ignané sax do ba gis mbaxam ak mm. fitam ak deugom mo len dal ci sonko mais ñi doon sekk sonko ni doon ko toroxal lappi lappi justice lappi lappi police lappi lappi gendarmerie ñoom ñoo tiit di génn maajoor na xaar li koy xaar na xaar li koy xaar te noppi mu ngi gën a dugal boppam. Mm-hmm. mu ngi gën dugal boppam. li mu defendre loi yi fii pour ñu dal ci kaw Sonko ba dernier moment ñu ne portable la sàcc muy génn di distingué du la <laughs> mais nga xëy tey yaay génn quoi di wax waxu amnistie wax soxna si loolu du débat su ma yeboon ma la du débat mooy sortem amul chance ba. te nag bu génnee faaw gaa ñu tontu ko xamal ko ne eh toogal rek xaar ñu xam naa mooy tontu kii nga xam ne mooy euh, euh, ki nu mu tuddati doomu. Fadilou Keita mhm. ak euh, Pape Alé Pape Alé tamit xam na ci dara. Mhm. Pape Alé dafa yor doki dosi doki document yu bëri. Mhm. lu taxoon ñu ni ko ci ci affaire armement bi fii. Pape li mu yor génnewu ko sax. Pape Alé li mu yor waxul lépp. Mhm. parce que nee na Ismaïla Madior li mu wax euh, nekkul wax ju ndaw dafa nekk euh, lu garaaw loo xamante ne nii euh, nekkul sax loo xamante ne nii dafay culpabiliser waat boppam bu fekkee ne génne na yenn kàddu. mais bien sûr ñaar la ñaar la ñaar ñaar lay wane. Mhm. ñàkk respect famille yi nga xam ne ñooy ñoo seen njaboot nekk victime. Mhm. benn beneen bi moom day gën a wàccee boppam. ana Madior bi amoon doole fii démb loo wax mu wax lu ko neex. n'est-ce pas. ay termes yi mu doon wax quoi. soo ko en tant que professeur mu ne nee non moom kàkkataar la quoi kàkkataar boobu tegi mënatul nekk ci dafa bëgg yor continuer nekk kàkkataaram benen façon manul ne mom day gën a ridiculiser boppam parce que démb moo doon défendre tooñ yi layal lu ñu teg sonko mu layal ko loi moko ko ko war nangam ak nangam cool contumace bi fii la ñu amul lu mu ci waxul te mu ngi ci mm-hmm. nañu xaar rek insha allah ma wax gaañi nañu dal sonko ngi ne tekk tekkaaral waxul tekk tekkaaral Sonko ci côté justice nag jaaxal nañu bëri. mais bu bokkee yaakamte am na ñu ma gis ci plateau yi non dafa am ñu dee d'accord dara. nit mbokk yi euh, soxna si. révolution xeex ko metti na waaye gàññe ko ba téye ko moo jafe parce que dañoo jàng histoire tuuti nag. expérience baa ngi suñu kanam Algérie. Mhm. Soudan euh, Thomas Sankara barki Demba ak yeneen yeneen. da ngay coup d'état pare ñu coup d'état waat ñu coup d'état waat la wala nga aksi ak say copain ci nguur gi ñu fexe nanguwaat ko ci yow te dañuy collaborer ak say collabor ñi nga xam ne ñoo collaborer ak yow hmm. il faut ñu def doucement gaay dañu jàpp c'est fini fi mo gëna metti té dañu def doucement ñi jité réew mi mënuñoo gàddoondoo yépp di dem dafa am ñu fi fekk dund nga ngi ni metti na Mm-hmm. amna ay problème yu nek ci biir réew mi moy audit yoy ti dinañ ci ñew il faut mm-hmm. ngeen may leen ñu réfléchir té Sonko alhamdulilah dafa nek kenn duñu tek pression dañu ñuy bay ñu dem ay deuxième mandat sonna lu ñu suñu noppé tégal leen su ngeen bëggé yéen xam té lool moy réew mm-hmm. kon nag justice dina taxaw major xamna fiñ na jëm liko ko tax a na ko té légui mu leer ci bopp sénégalais